administration de am ñaari yoon ñu ci par concours généralement mais aussi nga dugg si sur titre sur la base de diplôme bien sur la base de résultats de la commission nationale de recrutement la si ëpp servir administration privilège au Bangladesh. les meilleurs cadres de ce pays sont dans l'administration les meilleurs produits de nos écoles et universités et instituts sont dans l'administration pour l'essentiel donc vous avez les formations de formation moins connaissances jox également ñi nga xamante ñoo war a tey ëllëg ñu liggéey ci administration ay principe ak ay valeur yoo xamante ni ci lañu war a sukkandiku pour liggéeyal réew mi ndax liggéey ci administration mooy liggéeyal Sénégal mooy liggéeyal réew mi mooy liggéeyal say ñoñ liggéeyal citoyen Sénégal yi nekk si ay yitte nekk seen ay bëgg-bëgg ba pare lépp luy seen yitte ngeen taxaw ci dans le cadre des lois et règlements citoyen Sénégal ñoo ñuy fay seen ay lempo la ñuy dajale di ñuy jox salaire ñu koy dundee ak suñu njaboot kon suñu war a gar tey mooy taxaw nekk seen ay soldat seen yitte am accueil bu baax nit ki bu nga dalal ko bu xamul fu mu jëm nga orienté ko ci yaat ak teggin service ba muy nekk bala ba mu war a jëm ñu jox ko fa cër bi mu war a am en tant que citoyen en tant que client de service publique loolu nag sunu responsable ñun ministère fonction publique la waaye nag seen responsabilité surtout yéen ñi nga xamante ne nii dangeen a jógee ci origine yu bokkut def formation yu wuute wala dem ci ay ministères yu bokkul seen responsabilité mooy témoin bi ngeen jox maanaam tey li ngeen jox mag ñi jox ñu ko ñun seen génération yi di leen ko jox bu bañ a réer ci yéen tey ñu ci réseaux sociaux yi ñu ci information rapide bi